jaaro bi day ubbi wërsëg te bu wërsëg bi ubbeekoo ci kàttanu yàlla xaalis dana mën a ñëw toog sa loxo wax dëgg yàlla ñu defal ko ñu ci jàppale doomu aadama yi bu baax a baax a baax a baax a baax ndax doomu aadama yi bu jëkk dañ daan wut dem ci ay sëriñ di wut ay gàllaaj di wut ay ndomba ak ay xaaw ak lu ñu takk ak nangam nangam mais léegi ak modernisation yu bëri léegi seen ay ñaan ci seen jaaro lañ koy def te légal na ndax li nga xam nee nañu Seydina Muhammadu Rasulullah daan na takk benn jaaru aqiqa ci loxoom ñaareelu mbir ba ñu gis sunu reyukaay ci njabootu Serigne Touba maam Cheikh Fall ku mel ne que Serigne Saliou Mbacké yëkkati nit di ko defal ay kilifa bu wax dëgg yàlla kon ñu nit sañ nañ koo def ci lu dagan kon nag li ñuy wax mooy jaaru bu bleu bi daf lay aar day ubbi wërsëg daf lay jàppale ci cat daf lay jàppale ci làmmiñ te képp ku la def liggéey bu bon du la laal. loolu mom la jaaro bu bële bi di wund te macha allahu rabbi ki xéwal xéwalu Serigne Touba rek lañ ci mëna wax te daf lay jappalé ci ay catak lamine comme nima ko waxé sank te daf lay dimbalé itim ci affaireu rab boko ko ay rab ak ay seytaane ak ay gént yu lëndëm yooyu yëpp sunu borom dañ la ci mussal ci katanu yalla muy bàgg. un sexe selon qu'il soit court ou long. Ouais. Est-ce qu'il peut avoir un effet sur la fertilité? Ouais, ouais, ouais, ça peut avoir sur l'infertilité, mais aussi ça ça ça ça, ça gâte une couple. Si tu as une femme, tu ne parviens pas à la satisfaire comme tu le veux, aussi c'est dangereux. Je te, dis, il y a beaucoup de gens qui ont une impuissance sexuelle terrible. Mhm. C'est dû à, ça. Donc, chez nous, on peut, avoir des médicaments pour agrandir la, taille de la pénis. Il n'y a pas des effets toxiques ni chimiques. On travaille à 100% naturel. C'est dû à des plantes et des pommades qu'on met sur le sexe. Et là-bas, ça développe en, volume, en longueur, en puissance et en érection. Et c'est des pommades traditionnelles C'est des pommades traditionnelles. Donc, toujours... C'est dû par des plantes, par, par les sèvres, par les écorces et, les tiges. Parce que nous, on a appris la plante dans toute sa globalité. Ok. tey jii nag ñu ngi fii ci univers bio muy cabinet Serigne Lamine Bara Fall dimbali surtout sama mbokk góor ñi wàllu doole bi wàllu ngóora wàllu kattan ak wàllu sëy pour lu yokk guddaay bi yaatuwaay bi rëyaayam ak dëgëraay bi muy ñetti pommades yi ñoo koy def en même temps dañ leen di mayaale ay garab pour faiblesse sexuelle may la pour éjaculation précoce ci kattan yàlla kon képp ku bëgg jokkoo ñun mën nga ñu woo ci 77 169 45 45 77 169 45 45 ñu ngi ci Dakar Géejawaay arrêt Dubalès Serigne Lamine Barafal inshallah képp ku ci jafe-jafe yi nga am ci sa walu doole walu à walu kattan walu ba livraison à domicile c'est possible gratuitement fo nekk ci ci Dakar inshallah inshallah. rabbi rek ñu xefee nu ñu ci dimbalee ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak amina sëriñ bi jërë ngeen jëf merci.